mbokk yi gannaaw ba ñu leen nuyoo ba noppi euh, tey ñu waxtaan ak am solo moo di wàllum euh, transport boo transport xam ni kii boo xamante ni bëgg nga avancé pour nga am transport bu dëgër ba tax na fii ci Sénégal li fi nekk ci wàllu transport bari naa ay fànn yoo xamante ni ñoo ko sekk mais tey ñu tànn boo xamante ni mu am solo la moo di le transport urbain bu ñu transport urbain nag daañu xalaat ñi nga xamante ni di AFTU ñi nga xamante ni ëpp ci wàllu dem beeg dikk bi fii ci biir Ndakaaru ñoom ñoo ko yore. gannaaw loolu nag euh, ñu guddal wax ji li ñuy def rek moo di indil leen waxtaan bu xamante ni na ci li ko gën a sabab moo di mbas mi fi mu ci jamono ji ci Sénégal ak wàllu dem bi bi ci loolu nag ñu bàyyi leen ak suñu gan Mouhamed Ndoye mi nga xamante ni opérateur économique la ci wàllu Aftu ñu teewlu ko. salaamaaleykum Mouhamed Sam mu ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur TFM yëpp. Euh, maa ngi tudd El Hadj Mouhamed Ndoye di président GIE dimbalante. GIE bi nekk membre si AFTU may opérateur si biir AFTU. Euh, président bi ñu doon nuyoo ba noppi. li ñuy tàmbalee waxtaan bi. Mhm. moo di benn laaj boo xamante ni jamono bi samp na. Mhm. tey bu ñu xoolee bi mbas mi duggee ci Sénégal ba tey. Mhm. doon na si juróomi weer. yéen bu ngeen nattee seen wàllu activité. ci wàllu euh, bu dee mën nañu ko tuddee bénéfice wala ay pertement yoo xamante ni tey tax na seen activité daanaka lu ci bëri na solo. waa jërëjëf Mouhamed gannaaw ban la nuyoo euh, ñu ngi nuyu sunu kilifa sunu ministre tutelle muy euh, maître Oumar Youm di nuyu euh, DTR di nuyu directeur u waaye di beral nuyoo président AFTU muy président Mbaye ak quatorze présidents yi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk GIE yi tam bokk seen biir waaye it ñu ngi nuyu sunu ñetti PCA yi ndax ku wax aftu di nga tudd Mectrans ku wax aftu di nga wax bi mais ku wax aftu aussi di nga wax Captrans jërëjëf si question bi nga ma laaj léegi mu jëm si wàllu liggéey bi ak feebar bi nga xam ne moom moo nekk si dëkk bi muy Covid 19. Euh, ñuy ñaan yàlla rek yàlla mi nga xam ne moom moo ko fi indi yàlla na fi jëlee waaw defe naa ne feebar bi mu ngi fi dugg le 2 mars. bi ñu demee ba le 10 euh, monsieur le ministre dafa ñëw teg benn arrêté que ni oto yi ñu ngi am droit yàpp assise ban assise maanaam ban yëpp ba mu fees ñu demaat ba le 20 mu génnewaat beneen décret wax ne oto yi ñu ngi am droit yàpp moitié carte grise c'est-à-dire tey bu fekkee ne sa carte grise 22 personnes la war a yàpp oto bi place assise yi donc da ngay yàpp 11. ñu demaat ba le quinze mu ñëwaat ci banc assise yi donc loolu euh, naam dogal la nag yàlla moom moo fi mu feebar bi mais metti na trop trop si sunu sunu liggéey ndax vraiment ay ay perte yu yu am solo euh, ñëw na si ndax tey bi ñu commencé si banc assise yi wala damay départ sax avant Covid bi di ñëw oto yi daanan dem ba quarante jëm cinquante mille par bés. wàll wàllu xaalis wàllu xaalis bi nuy am suñuy place debout mais xam nga oto yi dafa am ay frais ndax ku xam oto yi mu ngi fay trait weer wu dee sept cent vingt neuf mille francs salaire dañuy fay trois cent cinquante mille francs donc oto bu ne dafa am ñaari chauffeur am ñaari receveur si biir loolu y aussi les entretiens yi nga war a def wala panne yi nga xamante ne daf lay bett donc moo tax frais yi dafa xaw a bari donc oto yi daan nañ tourner un million trois cent des fois sax daan nañ jàll ba si un million cinq cent mais difficilement nga si nga siy génn ndax euh, su ma fàttaloo ko rek ministre bi toog nan ay jotaay yu dul benn du ñaar muy wax ne xam na ne aftu même avant pandémie bi daf doon liggéey à perte donc ku si nekkul nag doo ko xam mais si réew mi lan dëkk nekk ay transporteur war a bokk si ñi war a développer réew mi ñu ngi sant yàlla nag bi ñu si yàlla boole boo si biir bi du ñëw vraiment bi ñu demee place assise yi wala bi ñu demee si moitié place yi wax dëgg yàlla metti na suñu mais metti na aussi suñu personnel roulant muy suñuy chauffeur di suñuy ay receveur ndax tey euh, bu nu seetee ña say fay salaire bëriwul bëreetul ndax euh, président Macky Sall dafa wax ne bu bu ñu dàq kenn au moins bu ñu mënta fay nu fay soixante-dix pour cent alhamdulilah ñii ñi ñu ngi koy def mais metti na si kilifa wala koo xam ne dafa yor njaboot daan touché nangam nga wàññi sa 30 pour cent metti na trop mais alhamdulilah ba état aussi joxaat nañu euh, place assise yi du ma ne doy na wala du ma ne baaxul aussi ndax euh, euh, moo tane moitié ba nu nekkoon ndax moitié ba ñu nekkoon oto daana liggéey ba wàcc mille francs lay dese wala mu dese cent francs recette boo fayee chauffeur bi journée fay receveur bi journée quatre cent francs moo lay dese wala mille francs des fois sax daa nga am oto yoo xamante ne da ngay am reliquat si gasoil bi wallaay da ngay obligé may leen ko des fois nga dem si station yi waxtaan ak gérant yi ñoom ñu dimbali la jàppale la oto bi sol gasoil ba nga dabuwaat sa plein parce que loolu la ñuy bëgg ndax kersa la vraiment oto af ci aussi di daw di panne gasoil si si tali bien vrai que si pandémie bi gis nañ ko waaye it bon du suñu faute jafe-jafe dëkk bi moom moo ko indi léegi ci loolu état aussi vraiment am na taxawaay bu mu si def ndax yëkkati na lu mat un milliard jox ko opérateurs yi ñu defaat ko si ñun si panne yoo xamante ne ñu ngi woon ax moom walay bor yoo xamante ñu ngi woon ak moom tey boo demee si maison yi lu mel nii Unitec Motors wala lu mel ni euh, seen bus da nga fa fekk ay oto yoo xam ne peut-être seen borom mënuñu leen génne te dara bàyyi ko fa lu dul xaalis te si pandémie bi la amee ah, am na tey ñoo xam ne bu ñu waree dem def ji euh, entretien ci biir maison yi dañuy obligé def ko ci biti parce que mënuñu ko te bu nu bàyyee it oto bi dana gaare wala oto bi panne moteur donc da ngay fexe da ngay da ngay préférer dem ci biti defe ko fa pour mën a sauver aussi client bi nga xamante ne moom la ñu seqal ndax tey afti bu jëlee hmm, oto yu day nii mille huit cent quarante presque teg ko ci biti kooku client bi moom moo tax waaw donc client boobu dafa dafa jar bàyyi xel. client boobu sax foofu la ñuy ñëw. ndax gis nañu ci wàllu oto mhm. lu wat lu war a mat ñaari waxtu. ñu mhm. am bus. Mm-hmm. dem nañu peut-être seen doxantu fa xool naka la situation bi dëggee ci wàllu mm-hmm. ñu de minutes ñu ngi taxaw di patienter. ok c'est que dafa mel ni chaque lay demee. waaw mais mooy loolu ah, ça devient de plus en plus difficile suñu sañoon du deme nii dina ñëw fekk fi oto ku nekk am oto ñibbi tranquillement quoi mm-hmm. mais bon vu la situation tamit mooy loolu boo amul yaay da ngay nàmp mbaam. je peux pas que noo gars di def euh, noo euh, ay taxes dix mille dix pour dem Pikine dix mille yore naa ko maa ko gën a yore mais du ko joxee bàkkaar la du ma ko def mu ngi nii dix mille yore naa ko mu ngi nii dix mille yore naa ko mu ngi nii xaar yore naa ko mais bàkkaar la bàkkaar la parce que am na ñenn ñu xam ne soxla nañ ko sa biir kër. waaw soxna ñu dañuy yërëm sa benn instant yi moom mooy loolu dañuy yërëm trop moom. waaw benn instant sànq sànq sax client damay yërëm am na ba taxal benn client ñu jàpp ma si. loolaa si fay xaayee sax mooy loolu quoi. affaire daal ba tey yéen mënagu leen yëpp ba léegi ba léegi mënaguñu ko ba bi na trop daal. oto yi yi ñoo doyul wala client ñoo bari. oto yi doy nañu mais maanaam client yi taxaw bi mooy na taxaw bi maanaam daan daan am si oto yi moo amatul loolu moo waral loolu quoi. affaire daal moom mit na trop quoi loolu ba bu mënee am daal na na si gars en tant que chauffeur yow boo gisee clients yi taxaw nii ñi yàgg fii xam nga naaj bi tàng et tout ça ba heure bi mënuñu am oto yow lan la lay def. c'est c'est vrai li nga wax lu am métti na na trop daal dañuy yërëm daal. place debout yi suñ toll nii ji des fois da nga koy yeb sax boo génnee dañ lay jàpp te buñ la jàppee dañ sax dañ la naan carrément gaaral oto bi jël say pièces dem noonu ngay mujj wàccee say client topp. kon kenn amul droit taxaw ci oto yi ne nii. non non suñu toll nii moom kenn amagul taxaw ci oto kenn bay Fall lañu bëgg a ñëw mais oto yi dañuy ñëw ni lañu jëm parce que yoon léegi oto yu bari bu ñu ñëwee Tëngéej la ñuy dem ñu nga xam ne ñu war a wàcc Fasu Thiaré wala ñu war a wàcc Kën Bay Fall dañu am problème pour wàcc boobu ba tey taw di xaar biis waxuma dara ay nit ñoo xam ñoo fi mujjee ñëw di door rek door ci marché bi dóor ci tata bi paas yi seer na maanaam ñëw rek mujje fi am nga rang la boo mujjee ñëw taw si kanamu jàmbur dugg lool day fi am mais nu muy demee instant bi nii mbay le gouvernement est-ce qu'il sait ce qui se passe benn nit la Macky Sall benn nit la benn nit mais benn nit boobu est-ce que mën na régler problème yëpp Sénégal on verra y a les ministres les ceci les cela est-ce que les ñooñu sax nu ngi liggéey moi je me le demande quoi ce pays là va mal très mal même. mbokk yi mu ngi noonu garage bu Petersen gis ngeen jafe-jafe yi nga xamante ni moom la client yi ñu demoon ci si tali bi mu nekk loo xamante ni euh, président gis na ko euh, tey bi nga gisee image bi yow naka nga jàngatee situation. waaw tout d'abord dañuy dañuy masawu askan bi. ku ku wax askan wi aussi wax euh, client bi ndax euh, ñun bu ñu jëlee suñuy oto comme ni ma ko waxee sànq teg ko ci biti client bi moo tax. tey bu amul woon client oto yi du ñu daw donc vraiment li xew tey métti na trop dañu koy gis def naa si ay vidéo yoo xam ne envoyé naa ko monsieur Guèye DTR envoyé naa ko aussi euh, directeur CETUD monsieur Aw. pour vraiment ñu gis lii client yi di dund dafa métti trop ndax di nga gis client boo xam ne dafay jóge Petersen dox ba Pikine wala mu jógee Petersen dox ba Yoff loolu c'est très très compliqué si ñoom donc loolu am na benn moment euh, afti ñu doon demander pour pour yokk paas euh, lu mel ni moom moo tax ndax tey euh, Mouhamed bu fekkee ne man suma oto dafa war a def quatre rotation te bu defee quatre rotation danaa am difficulté pour sol ko gasoil damay préférer mu def trois rotation tey mën a defal ëllëg trois rotation les quatrième rotation ba mu waroon def moo waroon jëli client yooyu jafe-jafe boobu nag mooy mooy mooy problème bi te loolu euh, ñu ngi koy lancé état bu ñu tuddee état nag tudd nañ suñu ministre tudd nañ aussi suñuy directeur ñoom ñu xam xool ban solution la ñuy def ba loolu ñu mën ko saafara donc appel boobu vraiment ñu ngi leen koy lancé ñoom it ñu xool ban solution lan mën a teg ñu man ko lancé gannaaw ba liggéey bi ñun ñoom ñoom ñoo ko bokk jërëjëf. waaw ah, jotoon ngeen ci génn yi ñu mhm. wax ni da ngeen doon sàkku parce que ñu indiwaat place yu dëkk yi maanaam bu place yi ñuy toog yi bu feesee ñeneen ñi mun a dugg ci bis bi taxaw. Mhm. pour a mun a dabuwaat seen euh, ay mhm. loolu tey yow lan ngeen ci mën a wax. waaw effectivement ba léegi dafay fekk ji rek euh, li ma doon wax sànq muy quatrième rotation boobu xam nga tey euh, donte quinze debout la sax euh, bañunu ko mais xam na ne réew mi fi mu toll vraiment ak chiffre yi mbas mi ni muy yokkoo décès yi ni muy yokkoo dana jafe ñuy taxaw di di demander loolu parce que tamit ñun ñëpp ñoo war a bokk xeex bi pour arrêter mbas mi ndax économie yi mën a mën a jogaat ndax euh, vraiment mbas mi bokk na si li muy bañ mooy tancaloo te place debout boobu dana indi tàncaloo donc loolu it euh, du loo xam ne vraiment période bi ñu toll période la bu ñu war a mën a taxaw di ko di ko di ko laaj donc mbir bi noonu la demee. kër bi moom fan yi bàyyi na trop. Mhm. Euh, justement comme ni nga ko mhm. parce que gis nañu. Mhm. dafa am ñoo xamante ni maanaam sàmmootuñu digle yi nga xamante ni kër docteur joxe nañ ko pour mu ci mbas mi ci oto yéen yi war ngeen ci am benn jéego bi ngeen si taxawee pour ñu mën a sàmmat geste barrière yi comme effectivement effectivement Mouhamed kooku yaakaar naa ni euh, bépp sénégalais sax laay wax ndax euh, président bu génnee wax euh, dafa bëgg réew mi yëpp jariñoo ko mais ñun en tant que opérateur fa nu gën a mën a waxe pour ñu déggnu mooy si secteur ba nga xam ne fa lañ bokk muy transport boo seetee Euh, ay weer si gannaaw avant ministre de l'intérieur di jog di wax ne euh, ci transport bi masque c'est obligatoire boobu fekk na ñun ñu jël si suñuy matuwaay ba defoon ko bi ñu ko defee bi nu lancé affaire bi que ne lundi lay démarrer le dimanche la nuit le ministre bi génn de l'intérieur euh, génne boobu décret donc loolu ñun se la taxaw ba léegi ndax suñuy oto boo seetee sa gannaaw gisoon nga ñuy désinfecté suñuy oto ba tey si la ñu nekk ndax oto yi bu ñu demee terminus dañuy taxaw benn moment ñu désinfecté leen tous les jours la nag ci loolu aussi dañu permettre suñu ay receveur si lii oto yi di liggéey ñu siy génne ay gel mais di si génne aussi ay masques yoo xamante ne ñoom dañ koy takk parce que masque yooyu moo leen di aar mais it mooy aar ñi nga xam ne ñoom la ñu nekkal moo tax ñuy demande clients yi tey si suba. Euh, am nañ si benn jafe-jafe côté Yoff avant may xëy su ma benn xarit moom moo woo ma otaam dañ ko jàpp si client boo xam ne dafa ne ci biir oto te takkul masque bi ma demee alhamdulilah euh, homme de tenue aussi di def seen liggéey vraiment liggéey bu mucc ay ayib donc loolu ñoom it ñu ngi leen si félicité bu baax a baax a baax di leen si jaajëfal wax naa naa chauffeur bi waxtaan naa seen receveur bi aussi ñoom it ñuy jël seen ay matuwaay si loolu parce que mbir mi. ñun ñëpp ñoo ko bokk tey man bu fekkee ne man maay chauffeur dana compliqué pour ma wax ak client yi ndax gannaaw laa leen di wan mais la le receveur dafay toog janoo ak client yi moom nay wax ak client yi ku takkul masque na wax ak moom parce que daf koy aar moom mais dafay aar ñi nga xam ne ñoom la féeteel donc si loolu nu ngi ñaan suñu personnel roulant bi ñi nga xam ne ñoo ne ci oto yi mais nu ngi ñaan suñu clients yi aussi ñuy respecter mesures yooyu moo ñuy dimbali moo mooy dimbali dëkk bi yëpp ndax tey receveur bii nga xam ne mooy janox client bi bu jógee si oto bi dafay janox ñun pour indi versement bi nga xam ne moom la war a indi voilà dem si njabootam ñu nit bu ñu jogee si ñoom dañuy dem si suñu njaboot donc loolu nañ si bàyyi xel xam ne mbir mi ku mu laal rek dafay law ba ci keneen euh, solo boo xamante ni ñun nañ ci bàyyi sàmm suñu ay dëkkandoo sàmm yi tamit suñu ay jege ñaari ci place bi mbokk yi fekkee dañuy doog a topp ci émission bi di émission li ci dem bi ak dikk bi ñuy waxtaanee wàllum transport di dalal ki nga xamante ni moo di ah, Mouhamed Ndoye di président GIE bi moo leen tee ci wàllu aftu bu ko defee dañuy seetaan li nga xamante ni moo di nataal bi benn jàmbaar boo xamante ni bu jigéen la xam naa ni nag soxna yi ñoom jamono bu baax a bi mooy ak pas-pas bu dëggu moo ko dugal ci bii métier Ndeye Thiam nekk benn jigéen boo xamante ni moom mi kot mooy ab dawalkatu oto fii ci AFTU bëgg-bëggam ci lii di transport nekk na loo xamante ni dafa yàgg ak moom. mu ngi xamal ni sax ba mu nekk tout tànk ba tey la yàgg bëgg nekk chauffeur. depuis ma nekk xale su ma mosaan gis jigéen bu yor oto dama koy daw sax di topp ndax bëgg gi ma bëgg oto ah, bi ma demee yàlla dogalee nag may jàng soriwuma ci sama jàng bi ma arrêté ci laa dugg ci métier oto 2008 laa ci dugg bi ma ci duggee eh, wax dëgg yàlla ah réccu ma tamit aussi lu ma ci doon duggee parce que. li ma ci doon yëg yëg-yëg yi bi ma ci amoon ba dugg ci ah gis naa ci daal wax dëgg yàlla lu kawe sama njort. moom ndaw su jàmbaare si nag li mu gëm moo di amul benn liggéey boo xamante ni si jigéen mënu koo def li nga yitte woo rek moo di gëm-gëm pour mun a am li nga bëgg. ne man am na ñoo xam ne dama leen daan defal stage yu receveur muy ay góor. ñoo ñu dem ba ut poids lourd ba ut transport man may nekk ci ginnaaw di di di nekk chauffeur ba léegi ma ne pourquoi pas man euh, gëm-gëm bi ñuy am ba man ñu jaar ci man ba tey ñu nekk ay chauffeur man mënuma ko am parce que métier bi nekkatul affaire góor ak jigéen la gëm-gëm la rek te loo gëm rek bu yàggee suñ borom mën na la ci fekk si. presque milieu bi li ngay nekk ak ay góor moo ëpp li ngay nekk ak ay jigéen. da ngay dem ba loolu dafay dafay nekk euh, benn kii ci yow daal euh, maanaam daal amuñu benn problème daal ci gàttal franchement. ñii di ay jege ñaaleem ñoom ñu ngi xam le ni sax moom mii di ci am seen royuwaay la ndax bis bu nekk rek dañuy jàng ci moom njàmbaar ak li nga xamante ni moo di pas ba ma yoree man sama permis sax chaque jour dafa may ñaax naa ma dem uti transport dem uti transport dawal bi góor ñi rek moomuñu ko. waaw jom ak fu la euh, ñoo xamante ne rek leen di génne ñuy. ñuy tappaleeg yooyu comme yeneen chauffeur yi am naa fi ay benn benn daal moom daal xam naa ne njaxlaf na. dafa yàgg bëgg métier oto mais xamoon naa ne lii moom du du du bettu ñu quoi ñun bettu ñu si moom. parce que moom da daan ay avancé ay oto di kii yu demee noonu lu góor yi daan def sax daanaka moom moo koy def yu si bëri mooy mooy loolu. nang daraan cric di def lu ne yoo xam ne receveur yu góor yi sax rek moo mooy loolu am na receveur yu góor mu ko dàq day dugg si oto di cric di def yenn même panne yi sax des fois bu chauffeur bi yoxalee sax mooy mooy dem dem def li nga bëgg moo koy def. fukki at ak ñaar gannaaw ba nga xamante ni si nekk na chauffeur ci wàllu aftu ba léegi moom ndaw si nag ñàkkul li nga xamante ni moo di ay ambition yoo xamante ni am na ko ngir lu gën a mën a jëmale kanam liggéeyam. jàpp taw a bàyyi rek bëgg a taral bëgg am tam lu ñu suturloo rek. ndax xam nga benn instant liggéeyal nit dafa xaw a metti surtout jigéen ku sañoon di nga am borom kër am say njaboot xam nga toog gere donte da ngay liggéey mais tam xam nga boo liggéeyee ba tollu fii ah lii sama bëgg-bëgg daal mooy yàlla dimbali ma ba ma am sama yëfi bopp maanaam am sama oto bopp. loolu nag maa ngi ciy lancé waale appel autorité Sénégal yépp bàyyi ma kenn képp koo xam ne mën na ma jàppale. ci sama oto bopp muy boo may may muy boo may lebal bëgg naa l'essentiel daal na nekk sama oto bopp boo xam ne maa ko moom di ci dimbale sama ay waajur. royuwaayam moo di Mama Africa di benn jigéen boo xamante ni ku ràññeeku la ci wàllu transport fële ci Afrique du Sud moom jigéen ju jàmbaare jii di Ndeye li mu bëgg rek moo di am entreprise bu boppam boo xamante ni ci wàllu transport la yëngatu bu ko defee mu mun a bokk ci jigéen ñi nga xam ni ñooy sukkali réew mi rédaction bu Futurs Médias rawatina seen émission li ci dem bi ak dikk bi di ko wax waaw kumba tey tamit di ko xamal ni na gën a jàpp bu baax ndax góor baax na waaye itam jigéen baax na lool ñi euh, mm-hmm. euh, jërëjëf Ndeye dañ koy euh, félicité mais it lii day firndeel que ni jigéen ñi bàyyiwuñu seen bopp la ba gaw la daan wax na rek ñaar loxo moom mooy takk tubéy mais ñaar loxo moom mooy takk sër dafay dafay firndeel lii donc vraiment dañ koy encourager mais di encourager aussi yeneen jigéen ñi nga xam ne ñu ngi si ci réseau bi ndax nit foo nekk rek war nga ñaan avancement tey euh, ni AFTU amee ay opérateurs noonu la amee ay opératrices tey bu nu seetee trente pour cent ci ci ci ci opérateur wu euh, AFTU yi euh, trente pour cent yooyu ay jigéen lañ donc euh, vraiment ñun dañ leen di jaajëfal bu baax di leen encourager mais Ndeye Thiam mi moom vraiment xam naa ne foog président Aftu gis ko euh, waxtaan ak moom ndax lii lu lu am solo la lu am solo la si si réew mi ñu nekk muy Sénégal dafay wan ne toog ci kër gi kenn moomu ko ñëpp dañu war a génn pour daan seen doole jërëjëf. ñëpp dañu war a génn euh, daan seen doole loolu mooy message alors président gis nañ ni jafe-jafe yu bari la. Mhm. ci wàllu euh, perte boo xamante ne am ngeen ko ci gàncax gi wàññeeku na baax a baax. Mhm. tey am na loo xamante ne ngeen koy def yéen opérateur économique yi moo liggéey tey jii bi mbas bi ñëwee ngeen toll. Mhm. ay euh, wàllu économie. nekk loo xamante ni soo na baax a baax seen revenu ci bëri wàññeeku na. ñoom opérateur yooyu jamono ji lan la ñoo fas yéene def ak yéen ngir gën a mën a jàppale seen activité. waa jërëjëf jërëjëf euh, Mouhamed kooku euh, danañ si sawar a wax ndax euh, ku xam aftu ah ni mu ni mu day di nga xam ne institution bu mu war a bàyyi xel la ndax tey bu nu xoolee la mu am si wàllu personnel jege na sept mille emplois sept mille emplois direct waxuma indirect donc Sénégal lu mel noonu bu fi amee je pense que bëriwut donc euh, mu nekk entité boo xam ne aussi euh, banque yi ñoo koy suxali maanaam fa lay jëlee la muy jox opérateurs yi fa lay jëlee la muy jënd ay oto di ko jox opérateurs yi man wax aussi si assurance yi ndax euh, ku xam assurance la muy la muy jariñ aftu toog lu mat cinq mois tey encaissé wul lu dul ndimbal li nga xam ne moom moo joge ci état euh, kenn fayul traite ndax jafe-jafe yi nga xam ne ñun si la ñu nekk ñun opérateur yi afti googu dafa laaj taxaw ndax bu ndërmeeloo ah famille yi ndërmeelu dana bari ndax bu ñu waxee set mille emplois direct si ay famille waxuma indirect yi plus de mille opérateurs ku nekk ax la topp sa gannaaw donc famille yi ndërmeelu dana nu bëri kooku nag dañ siy wax état hmm. naam am na lu mu def waaye na gestuwaat aftu waaw bu ñuy waxee aftu nag danañ tudd aussi lu mel ni Mectrans muy banque boo xam ne transporteurs yi aussi ñoom ñoo ko créé donc entité yu mel noonu état war na leen gestu war ci am ba beneen taxawaay bu mu siy def ci biir feebar bi nga xam ne moom la ñu nekk ndax tey lu mel ni aftu opérateurs yi kese ñoo ko mën a suqali mais opérateurs yi ñu ngi si ay jafe-jafe état waroon nañu jox un milliard cinq cent tey jox nañu un milliard mu war a des cinq cent millions ah ñu ngi koy laaj tamit cinq cent millions yi <laughs> pour trois mois mais it yeneen deux mois yii des ah bu si mënee dugalaat tamit dara mu dugalaat ko si ndax danañu gën a yombal lii ñuy def si si dëkk bi ndax wax dëgg yàlla taxawaay bi dafa dafa metti trop dafa metti trop oto yi paan paan yi metti na. Euh, foo dugg ñii ñi ñu ngi fa amee ay bor tey mën nañ cité euh, jaaykatu pièces yi nga xam ne ñoo ñuy dimbali nekk su ñun aussi nekk ay transporteur ñooñu ñu ngi dimbali transporteur yu bëri ah ndax bu nekk woon ñooñu je pense que oto yi di gaare danañ bëri. am na solo fan am na benn accident bu gis fële ci risque benn ni marque Tata. Mhm. bi mu defee choc bi nag ñu bëri jàppoon ni ci af la bokk. naka mhm. noonu yéen waaw euh, laaj nga laaj boo xam ne vraiment laaj bu ama amaam solo la ndax laaj bi dafa baax sénégalais yi ràññee. Euh, su ma waxee sénégalais yi dañ war a ràññee tout d'abord balaa ma ciy dugg damay ñaawlu d'abord li si xew mais di jaale famille ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci loru euh, accident boobu effectivement accident bu benn tata def la mais du tata boo xam ne dafa war a daw Dakar parce que amul autorisation bi boo seetee dafay am lu ñuy wax licence licence boobu moo lay permettre nga xam fi nga war a daw ak fi nga war a daw oto yooyu ay oto interurbain la oto yu war a daw hors dakaar la ko dum daw Dakar donc loolu dañ siy lancer appel état du Sénégal mais ki si jiitu directeur surtout lañ ciy jëkka woo woo ci DTR mais aussi woo ci ministre bi ñu taxaw ci loolu concurrence bi dafa metti oto boobu moo clando ñoo ne ni képp yem te clando ku ko dégg di nga xam ne du lu valable donc loolu état daf ci war a wax bu baax a baax a baax a baax oto boobu bokkul aftu du fanu julli bi tout le temps ñoom ñu ngi Dakar dañuy clando Dakar waruñu am guichet mais daneen fexe ba créer ay guichet di yàpp clients yi di leen yóbbu mais dañu jël aussi couleur aftu def ko loolu it euh, interpellé si président aftu moom it mu jog si mais romb na waar romb na waar moo tax automatiquement bi accident bi amee euh, ñu si TFM nañ ko jàngee mais bi ñu xëyee la lendemain gis nañ euh, presque écrite bi euh, def si que ni aftu accident bi accident wu aftu la oto yi doon daw ligne cinquante et un mbaaw la aftu dafay moytu lu mel noonu suñu personnel dañ leen di defal ay ay formation via CETUD pour ñu xam comportement bi nga xam ne moom lañ war a yos ci kaw tali bi responsable bi nga responsabilité bi nga xam ne moom lañ war a yor bu ñu yoree ay client donc loolu dafa am solo donc loolu ñu ngi siy lancé appel euh, état vraiment mu am ci taxawaay bu mu ci def. Euh, bi war na ci euh, jël ay matuwaay yoo xamante ni dina tax ñu mën a wàññi jéey am ci tali jéey yooyu am ci tali bi sax jot nañ ci intéressé wu dem gëstu ci kër koo xamante ni. muy yëngatu ci wàllum prévention routière ñu gën koo xam ci turu Makhtar moom nag euh, am na ay euh, kàddu yu am solo yu mu yëkkati ay réforme maanaam ay sopparte yoo xamante ni si ci jamonoy mbas mi war nañ ko amal ngir kaaraange gi gën law ci tali bi dañ koy teewlu moom Makhtar tey jii ki nga xamante ne amul visite technique c'est pas parce que otoom baaxul donc li ñuy bëgg a foofu mooy yow mi yor sa oto li war a jiitu ci yow mooy en fait la notion de responsabilité xam nga responsabilité su fekkante ne kiy dawal ak ki nekk ci oto bi amuñu ko peut-être ci ay jéer rek lay mujj je pense que ne oto boobu camion boobu donte amul woon visite technique xëy na peut-être rendez-vous jotagul woon mais moom si boppam moo waroon a conscient de son activité parce que activité de transport lay def donc mu ne man mi kat. sama oto bi amul lumière naa dem changer ji ko sama oto bi amul ay frein naa ko defar parce que man rek nekk ma ci kaw tali bi dafa am yeneen usagers yu fa nekk te bu amee ay manquement si sama oto rek mën na indi ay jee mën naa lor ñu bëri et c'est ce qui s'est passé donc tey ji c'est pas parce que tey jii centre visite technique bi tëj na que ku nekk ne ah mankat lu ma neex lay def déedéet donc foofu dañuy interpeller maanaam bépp xeetu usager moo xam muy transport en commun muy transport de marchandise muy particulier sa oto seetlu nga ci ay manquement demal nga réparer ko en attendant que ñu la jox sa certificat d'aptitude mooy certificat de technique bi euh, pour nga mën a continuer daw mais nag di fàttali ne aussi que li am ci camion boobu xëy na sax peut-être un autre camion bu nekkoon en régle peut-être mën na indi yooyu moo tax woote chef de l'État bi dama ci ànd pour que la circulation des gros porteurs ñu réglementé ko accident yooyu ma la wax léegi buy am soit day nekk ñaari oto yi mbëkkante war oto bu daw ba daanu loolu nag jàngat bi ñu ci am mooy que ne souvent euh, kiy dawal dafay sonn te du bëgg a noppalu te dañ ne boo dawalee ñaari waxtu war nga noppalu ko fukki minute ak juróom ñu gis ne soo noppalukuwul la cay topp mooy gëmmen mooy gëmmentu nelaw et boo xoolee accident yi métti yooyu yëpp di am presque soixante dix pour cent des accidents mortels mi ngi am entre vingt deux heures ak six heures matin moo tax ma ne mbas mi ak interdiction yi ci lalu woon war na tax ñu réinventer en fait notre mobilité est-ce que proposition yi fi amoon ak yi ñu fi jotoon a def que ne nañu interdire lépp luy circulation de transport public de voyageurs entre dix heures ci guddi. ba 6 heures du matin. mbokk ñu leen di euh, jaajëfal bu ko defee ak si ci jeexantal bu émission di am yaakaar ni gën ngeen xam li xew jamono ji ci transport urbain bi rawatina ci pàcc bi nga xamante si waa AFTU moom la yore bu ko defee rek euh, ñuy gërëm suñu invité Mouhamed Ndoye président ñu lay jaajëfal baax a baax. waaw jërëjëf jërëjëf euh, Mouhamed ñu ngi leen di remercier yéen it di leen jaajëfal vraiment. ci invitation bi nga xam ne defal ngeen nu ko ndax nu mën a indi ay points yu ñu war a mën a leeral ndax euh, waa réew mi xam mais aussi di ñaxaat nit ñi rek ñu respecter mesures barrières yi nga xam ne moo ñu war pour xeex bi ñuy xeex pandémie bi mu man fi jóge ndax économie réew mi mën a jogaat jërëjëf jërëjëf euh, am na solo ci kàddu yooyu la ñuy euh, yëkkati jotaay bi di leen jox daje fii ak ay fan yu néew incha allah jërë ngeen